fexeel ba da nga may wax de. mi ngoog comme moo la defar nangu rek. garaaw nangul rek nangu lay nangul nangul rek nangul rek mbaay. jërëjëf sonn si gaaw ah ana invité gaawal. ah daa am ñu bàyyi pale ba nag. ah eh, ok pale boobu. mënuma lay xaar fan ma ta ñëw kii madame. da nga koy joxaat. Fouta Moji. Euh, waaye président ah, sérieusement ça te va trop bien. <laughs> sol. tey daa kañ sol euh, la jox tissu bi dama koy wax moom. tëj sama monsieur waaw waaw jërëjëf. ñu <laughs> ngi nii toog. jërëjëf jaaykatu tissu la. <laughs> amu leen ko de tissu lay jaay de. ñu koy nuyu bu baax bu magasin tissu la yor. jërëjëf jërëjëf waaw may tuuti waa président li tax demoo te li nga xam ne moo di investisseur bi bi ñu doon. defal lu ma fay wut laal la yow question bi arrêté ko foofu. <laughs> ko def lu ma fay wut. boo wax boo continuer di def nii <laughs> la laaj danga ne lu tax demoo Guinée ma ne la lu ma fay wut. parce que dañu doon investir ki nga xam ne rek. moom moo di xam naa ko mais wutuma fa dara ndax lan. donc moom defu la dara. man président laa ñu fal ma par les urnes. waaw damay dem si président yi nga xam dañ leen fal par les urnes. Ah, kon mais dem ci koo xam ne ay fetal la ko jëlee. lu ma fa wut quand même du sama nawle waxal leneen. question bi jox na ak gaaw te temps bee gudd. ñëwal. dalaa namoon demal rek ah dama dama dama rek namu ma ndax lii baaxul. Euh, léegi euh, président Macky noo gisee ki nga xam ne rek moom moo di kàddu Ablaye Balde yi nee na yow euh, da laa bàyyi. bokkatul ci yow dara dootul defati ci yow dara tax loolu. lu la moom moom ma bàyyi affaire am la maa yor nguur gi macha la moom nga koy laaj. mais nit ñi la fi teg de kon dafa mel président. nit ñi la fi teg boo ne maa nguur gi buñ ma bàyyi lu may wàññi maay président. donc jàpp si combat bi. ah non jàpp ma ci sax mais ni nga tontoo noonu du noonu parce que yow ay coalition ñoo la jàppale président. Ah, ah. mais lu si comme que nee na bàyyi na ma kañ. waaw du ma si dara du ma daw nag di ko jëli troisième question. <laughs> ci yàlla doon xam doo <coughs> jëkk siraat. day bàkk la réponse yi siraata ngoog. réponse yi lay bàkk la. léegi nee na mu waaw nee na na mu. yow lim la waxul yëpp. ba pare tey mu ñëwoon ànd yow nga di ko nga nga jox ko alal ju bari. Mm. moom mu tourné di ko wax. Ah, moo ko jox mm. Mm. jërëjëf jërëjëf euh, boo yeboo xam ne Fatoumata yow dina wax ak yow. parce que comme que nee nga daf ma koo jox alal ju bëri eh, te jigéen nga ngay jigéen bi yoon du la baal parce que yërmande du ñaan ay galanterie Fatoumata ñu ngi koy digal rek nga dem dik ah, ah, lii du comédie yow comédie di wax ni lislaam bi muy soog a door am na ñu yor jaasi di xeex lislaam ne du fi amee mujj ñëw di yor seen jaasi di xeexal l'islam dëgg loolu du dëgg mm-hmm. kon kañ bu fekkee ne nit ki nee na mbir yi doxut jékki-jékki yëg ni li mu doon wax doxut dox na loolu kañ dara newu si yow mi ko tuumaal nag ne jox naa ko xaalis ñi maa ngi wax Fatoumata na def li mu war a def comme que yow yaa ko tuumaal nee nga dama ko jox xaalis bu bari na def li mu war a def yóbbu la si yoon ñi ngi xaar plainte am suba <laughs> pour mu indil la ko bi yoon moom yow dong la yow képp yow dong yow la te kii moo la posé la question bi <laughs> waaye section de recherche bii moo la laaj loo question bi tey nga de <laughs> moom tàmm na yoon ba yow tey nga de xamagoo gisagoo dara te continuer rek di ko topp mu lay wax ngay. wax ma def ko dara du ma ci fekk. du comédie. comédie woowu comédie la lii comédie journaliste la journaliste la merci beaucoup merci beaucoup. ah fooy ba da ruux ruuxal. fooy ba fooy bi nañ ko génn. man xaw ma woon loo. mi ngi nii yow bi nga koy wax naan ko fuutal tàmb kii mi ngi ñaari question la yor. ñaari question ku la di ñaari question les trois questions. waaye ci jeex ak ba. tax yow nga jël Fatoumata Tampi teg ko ci kaw. yaa ngi wax ci Fatoumata maa ko wax. waaw nga jël ñi xam ne ñoom ñoo daan jàppale bi nga yorul dara. am na ko fa jógee. mooy question bi nga laajoon Adama loolu lay laajaat léegi ci yooyu lay am arrière xelam. waa loolu boo ko gisee dafa fekk ni Sonko moo tax bi Sonko waxee ne Fuuta Sénégal Tampi. Mhm. ma naa dagg boppu mbir mi. Ah. jël ki nga xam ne moom lañu wax Fuuta Tampi. léegi bu nee Fouta Woli na Sonko waxaat Fouta Woli. bu dee bu dee bu dee Woli su. ah, ah léegi gouvernement bi sonatu ma de. toog seetaan Sonko bu dee ma jàpp surtout Sonko bi lu mu wax ma def contrat. Ah, hmm, hmm, euh, euh, bu ne bu leen fal sukaa suba ma fal le président. jërëjëf ah. jeexal maa yow la yow. Mm. yow moom la si la. ah, ah def na li mu war a def waaw tamit amul question yooyu. soxna si laajal laaj ma laaj ma dama la xiif laaj ma. loo def question yi ma solo laaj na. temps bi jeex na deuxième invité bi ñëw jeex na. mooy. biir d'accord. aywa ñu ñëw ci beneen eh, dama laa dimbali rek eh, jërëjëf président Macky Sall Sall nga lamtu Arwar Bourguédé ni may ñëwaat ci waa mbuur rek di leen nuyu lu bare bare man ci sama copine de très longue date kontaan naa ci yéen di ak communauté maa ngi dégg yëpp maa ngi nuyu naa leen sargal naa leen lu bare bari euh, donc bu ñu jógee ci président Macky dañuy dem ci ki nga xam moom Abdoulaye Balde Abdoulaye nuyu nañ la Balde. maa ngi fay. di ko laaj aussi ci invitation bu am solo bi nga xam ni ngay ba maa ngi lay fay. maa fay fay. ak may fay. waaw di kontaan encore une fois. ci invitation bu am solo bi nga xam ni. ci plateau bi. maa ngi nuyu ñu ma fi fekk ñëpp. kenn ku ci nekkaay ci tur am ak changement sëñ bi dama dama fay fay fay. man ngi koy fay wax mmh, ko. mi ngi lay fay. Ah, mmh. man lay fay wala. waaw yow voilà mais kii dañu fay teg kay pour nit ñi président euh, kii euh, Abdoulaye li tax nga ne euh, li nga xam ne rek moom la ñu jiiñ Sonko da nga ciy sikki sàkk ni du dëgg. loolu fay si aussi Sonko boo ko xoolee. nga ni loolu wax dëgg ma Sonko boo ko xoolee may ma ma yeggali kër yi je vous en boo ko xoolee xam ni ni xam ni. loolu ñu koy tuumaay nekkul yoo xamante ni bi aussi dëgg la parce que sama xel moo ci tey que liy tax sama xel bi mu tey parce que ci xam nga Sonko dafa nekk koo xamante kii ah, waaw mais ma eh kenn xamul li wax nag. est ce que yow boo nekkoon président ah déedéet loo ci dugg waxal noppi. lay bële yow plateau bi la bokk léegi waxal continué parce que dañuy wax yéen dañu ñëwal. xaw soo ko. bàyyi dina wax parce que dégg ñu wax. xam ci bi aussi. mu ne xam ne boobu sëñ Touba. nekk yoo xamante bi aussi bu ñoo nekk dégg parce que soo ko jigéen boo xamante ni. moom ci ay mbiram. kay waru ko ceeb ceeb di ko jigéen xamante ni aussi tamit defu ko. yooyu ba dafa nekk yoo xam ne vraiment nag dama koy jaawyu bu baax a baax. yaa ngi nuyu président bu baax a baax. déedéet Sonko. yaa ngi nuyu Sonko bu baax. déedéet dama ne. waaw li mu def yooyu nga xamante ni muy viol bi. nee na nit war ñu ko jël rek di ko tuumaal yu kenn xamul. parce que c'est pas normal aussi. c'est pas normal Sonko dafa nekk ñi boo xam ni. ah Sonko. Eh, ko. Sonko laa wax est-ce que jotul booy wax ñu takkal ñu ay oreillette. noonu déedéet ah xam nga taxul. Cheikh lu ma wul li muy wax kiiwul. ki may wax ñooñu ci kii bi lislaam ci diine. Ah. kii tamit lislaam dafa am yoo xamante ni bii def wax waa ci kat yi dañ koy wax ñoom yi yaa ñoom ñoom yi koy wax. parce que nee na lislaam lislaam bu fekkente ni nee na ngeen di continuer dama sama dem ba dem sama. <laughs> temps bi jeexagul de émission bi def na 7 minutes. def na 7 minutes toogal. alaay bàll day budde moo tax nga koy neexam su ko tëjee kon jeex mhm. euh, na mu nekkoon ki nga xam ne rek moom moo mu nekkoon waaw li baax na bu ëllëgee wax def ko ko ma mu nekkoon Abdoulaye Baldé dégg ngeen ay kàddoom xamuñu sax li mu wax donc dina jox rendez-vous suba incha allahu rabbi ci même heure fii nga xam ne rek ki moo di émission bi la Taku Show ci Nepad Musical